ndax it wax la joo xamante ni bii keneen mënoon na koo wax ba des koo xam ne dafa ne ci état bi ndax liñ ñu gëmaloon ñun waa Touba ni ñu ilaa Touba bi sëriñ Touba tax ñu def ko kon wane nañ ni sëriñ Touba taxut seen bopp a tax ñun waa Touba njëkkoon nañ koo wax ni ilaa Touba bi ñorul ki nga xamante ne bii moo ko fi def. tey nag leer na ñun lii ñu nekk ragaluñ ci ndax ñun kenn mënuñoo jënd ñun sëriñ Touba rek moo ñu ñor. tey xamal ni suñ Moussa Diop moomu wax dëgg yàlla wax ji ñaaw na lool boo ko déggee mais nag dafa fekk ni euh, lépp lu feeñ ci loolu moo nekkoon seen seen objectif ndaka jekk ñoom ñoom ñoom ñu bu ko waa kër mag Sall yi mosu ñoo bëgg waa Touba mais mbirum Serigne Touba nag képp ku ci bëgg a ñaaw rek mais wax ci lu ñaaw mais mbirum Serigne Touba lu yàlla defar la ba noppi Sénégal Serigne la fi yàlla la fi yàlla teg. mu nekk ci mag ñi ñëpp mag ñëpp baax sax mais li li yàlla defal Serigne Touba comme naqari biir Sénégal ba ngay waxee noonu yow rek la engagé waa engagé wut kenn te yaa ci yàqoo mais. ndax jàpp naa ne boo xamoon benn instant diggante waa Touba ak Macky le président Macky Sall du ko wax ndax diggante 2008 ba 2012 ni ba 2012 ni président Macky Sall di falo ñëpp xam na taxawu taxawu bu rafet bi Serigne si nekkoon Touba taxawoo le président Macky Sall. Galas Kaltoum séddale la ci suñu alaaji Baara séddale la ci jàpp naa ne. am na faveur yu bëree bëri yu ko suñu alaaji baare defaloon yoo xam ne ñu bëree bëri amuñu ko maa ngi mos a seetaan benn jour ah, euh, TFM Aliou Badara Cissé di nettali biñ confisqué passeport le président Macky sàll mu ñëw ci sëñ Abdou Fatah bu sëñ Fall di ko wax ñu lijjantil ko ko ba mu jotaat ci passeport am relation yu étroite yooyu moo amoon ak Touba bu ko xamoon jàpp naa ne yenn déclaration yi du ko def autre chose jàpp naa ne Touba ay sénégalais dañ ko def parce que Touba il faut ñu xam géographiquement ñu xam Touba fan la situé ci Sénégal dafa nekk ci centre Sénégal nga defee autorité day lay permettre nga dem Fouta côté boobu kon jàpp naa ne genre déclaration incendiaire yooyu ci boppam moo war a jug ci réew bi arrogance boobu moo war a jug ci réew bi ñu respecté kenn ku nekk choix bi muy def waaw nañu respecté choix bi démocratie la wax kenn ku nekk am nga liberté far fa la neex kenn bopp yi que ni nit ñi ñi leen neex la ñuy faral boo leen doon jox 1000 milliards loolu il faut d' abord man damay wax euh, kan mooy Moussa Diop quoi ak moom lan la tekki ci réew mi li si njëkk mooy Ila Touba biñ ko inauguré ak léegi màggal Touba lañ ko inauguré mat un an ak lan mooy Ila Touba Touba dafa existe avant Ila Touba te Touba day continuer avant Ila Touba. Dakar bu doon ay désert jëm si Touba oto yi danañ fi jaar Mouride danañ fi jaar du ñëw Touba du ñun Ila Touba mooy avancé Touba du Ila Touba moo koy delloo ginnaaw ñun suñu yoon nekku ci se Ila Touba. Serigne Touba li ko suñ borom di defal defal na ko ba pare barkib Serigne Touba la Sénégal gépp di dundee moo waral Ila Touba beeg moo waral ñëpp nee day jël désert bil désert jëlee Ila Touba bi yóbbu ko Fuuta su paree nag na wut jël lu toll ni màggal Touba mu nu ko Fuuta population bu toll ni Touba na ko jël mu yóbbu ko Fuuta économiquement bi Touba di dugal ci Sénégal na ko jël mu yóbbu ko Fuuta ñun ay ay ay Ila yooyu ñun du ñu changé si ñun du ñu changé ni ñuy doxalee. Ila Touba ak yeneen moo si am ñun dañoo am suñu pas-pas am suñu ngëm-ngëm am nañ droit voter ku ñu neex. lool bu ñu ko defee c'est peine perdue mooy ñàkk xam waa Touba mooy li ma leen bëgg a wax ci Touba ñun amuñu problème nga def dëkk bi lu leen neex def leen fi lu leen neex mais mais ñun ñu faral ni ñu war a faral loolu loolu amul danger y a pas de danger mais jàpp naa ne le président Macky bu jëlee ab autoroute andi ko biir Touba. ah bon ci li ma jàpp ne ci la bu fekkee ne ci dans un état sérieux lañ jàpp de waru ci war ay retombées politique xaaru ko ci. Eh, kon nag ñoom intérêt mu la indi mais man loolu dama ci profité sax di sant waa Touba baax a baax parce que dañoo nekk exemple ci wàllum élection fii ci Sénégal fii ci Sénégal parce que boo gisee Touba tout le temps loolu leen dégg ci wax ji liñ fi dugal ci xaalis campagne bi ëpp na 63 millions ci benn balaa 19 heures 30 ñu xam ki gagné. waaw danañu laal parce que parce que parce que laal bi mooy laal bi mooy ton bi mu ko waxee moo ñàkk teggin ak et puis kan moom moom moom mooy kan wala ay maamam ñooy kan bi sëñ Modou Moustapha di woote liggéeyu raay bi ñu koy jëlee njaareem di ko indi Touba ana ay maamam moom anamu kenn xamu ko ñun murid di du ay Ila Touba nga ñuy convaincre wala dara. président Macky Sall problème mooy ñooñu genre genre déclaration yooyu ñuy def la war a xam ne waa Touba mënuñu koo tolloore ndax dëkk boo xamante ne ni soxlawuñ sa cent franc sa cent soxla wuñ ko kooku mënoo leen def yenn menaces yi bañ faale la